te mhm. it déggoon naa Serigne mu ni tant tant ñu digg Tiwaawoon kër Seydi Hadji mhm. njaboot jógee Touba ñëw fanaanoo tant ba mhm. waxtaanee ko ñu tant ci Touba njaboot génnee Tiwaawoon dem fanaanoo ko taxawu ko nee na diine bégagul maa ko jëlee ci gémmiñam nee na diine bégagul balaa bég nit génnee fii taxawu ci taxawaay Touba. Mm-hmm. am ko génne Touba ñoo taxaw ko fii. da mm-hmm. nga kaay wax li nga lii mag ñi dox nañ ci ba sonn. maa laa jab di yabal na fi sëriñ ca ak famille bi yëpp. Mm-hmm. ñu dem Touba. fanaan fa ba ñaari fan. keroog bi ñu laajee sëriñ ca mag ñi ne ko ndax dañuy wàññi julli. Mm. dane mukk xaqtaay xaqtaay gu mit ne wàññi mu ne suñu kër lañ ñëw ti kuy ti ku boo yeggee sa kër doo fii suñu kër keroog ñoom ñëpp matal julli waaw ah, seetal loolu. ñu dem ba Touba matal jullit yi mm-hmm. am doxu wàññi la. Mm-hmm. parce que seen kër. Mm-hmm. mu ne nag jël si nañ suñu ndono. yéen it ñëw leen ngeen jël seen ndono. mag ñi xalaat li lépp xamoon nañ ko. mais luñ ci man ku mel ni Iran nga xam ne yaruwul. Iran lu ko neex lay wax. Iran lu ko neex lay def. te sëñ Touba noonu waaye ba ko rek man faala saa. laqee ma saa. koy def lu la neex wax. su la def sëñ Tuubaa ne da nga yenn bëccëg boo xam ne mm. danañ ne foogoon nañ mm-hmm. waay waay waay gars yi mm-hmm. nañu dimbale mag ñi nag mm-hmm. billaahi haaroona mm. deux mille la neuf mm. dix lañ jógee dugg deux mille vingt xam nga mag ñi deux mille dix neuf lañ fi déparé dagaloo uh-huh. di dem rek uh-huh. lii lañ xamoon damaa foog ni lii lañ xamoon daw ndax yëgoon nañ ne rëq-rëq dana am ci diine ji rëq-rëq dana am ci mbokk ñoom ñëpp ñu dem seen yoon. Mm-hmm. maa ngi fi nag. Mm-hmm. waaw ñunu neen ñu ne fi. Mm-hmm. waa ji nañ leen rafetal. man munu maa xool sëñ Tuba dama cay alcool rek. Seydi Hadji Malick mënuma koo xañ dama cee alkool rek mhm. maam Limaamu Laay dama cee alkool rek mhm. maam Cheikh Bou Kounta dama cee alkool mhm. maam Amari Ndaak Seck dama ci alkool rek maam Abdoulaye Niass dama ci alkool rek maam ci alkool rek Alaaji Omar Ndaw Daaru Salaam dama ci alkool mag ñi fi ne koo ci laal Cheikh maam Cheikh Omar da ngay alkool ci dara lu sëñ Hadi Touré wax nee na moytul nitu yàlla mu sànni law saan bu la ko sànnee nga al ko mm-hmm. loolu laa bëggoon a mm-hmm. ñu bàyyi xel mag ñi mm-hmm. bàyyi xel këru mag ñi te ñunu neen bu ñuy xuloo ñu xuloo bu ñuy saagante ñu saagante ñoo xam man de moom man sama geer Haaruna mm. dinaa la ko wax mu leer nañ ñi diini jii mm. kenn mënuma cee tere wax te ku ci wax lu dul noonu dinaa la toon bu mu mën a doon nag daara yii hmm. daara yi hmm. kenn mënu ma cee tere wax hmm. ustaas yii kenn mënu ma leen teree défendre ndongo yi jàng kenn mënu ma leen teree défendre alquran kenn mënu koo teree défendre la ca des sama yoon nekku ci waaye diini ji sama guddeeg sama bëccëg ci laa ko def inna lazina jahadu fii naa la nahdiyannahum subulana wutuma dara. Mm. li mm. kenn yorul sama dara dara dara dara dara. Mm-hmm. xemmi mu ma leen ni kenn. Mm-hmm. wutuma ci kenn len mm-hmm. sutura yàlla ngi. soxluwuma borom alal. soxluwuma daray kenn. waaw. Mm-hmm. dara kenn mm-hmm. daara jiima ne mm-hmm. ONG ñëw fi groupement ñëw fi patron ñëw fi kenn fekkuñu fi waaye ñu ngi fekk borom muy Seydi Aboubacar soxluwuma lenn kenn man maa fi nekkandi nekkandi di dama fi jógee wóor na ma ndax dafa am ñu fi nekkoon jóge fi ma toog fi dama fi jógee waaye fu ma mën a dem nag dama fay samp daara du ma teqale ko jàngal waaye feeg maa ngi fi. Hmm. kenn du ci dugal lu ci bokk. déedéet. manul nekk. waaye yàlla ngi suturaal. suñuy xale yelwaanuñu suñuy xale génnuñu suñuy xale amuñu benn jafe-jafe. yàllaa ngi defee lépp ci barke borom. kon lu ma bëgg a wax dinaa ko wax. suñ doon dundee xeer sax du tax ma doyee hmm. waaw est-ce doon yéy xeer du tax ma doyee dégg naa nag. Uh-huh. Talla Sylla taxawaayam. wallaahi. ci internet bi. wallaahi ci nëbbul ci dara. engagement am ci daara yi. Mhm. dégg naa ko. Mhm. waaye ni mu def noonu la mënoo sopp Serigne Touba di contre daara. wallaahi. manul nekk. Mhm. Serigne Touba laa yaakaar. muy sama Serigne. nga weddi daara. da ngay wax lu la neex. wallaahi. Seydi Hadji laa yaakaar. di contre daara waxoo dëgg. Maodo bañ ko laajee ne ko alquran. lan mooy njëriñam mu ne alquran de ku ko bëgg mhm. bëgg nga muhammad mhm. ku ko bëggul bëgg yonent bi mhm. inna alqurana huwa almizaanu taarifu minhu maa hawayta min al aswaaqi wa sadami maw doo ko bind nee ni nga mel ci yonent bi boo ko bëggee xam li nga am ci yonent bi seetal sa cofeel ci alquran nu mu toll noonu la sa bëgg muhammad toll kon taalisi la dañ koy gërëm man dëkkuma Cees newuma fa waaye geenu golo gudd na lu ca woo ci laal borom yëg mm-hmm. man sama guddeeg sama bëccëg daara yi la mm-hmm. diine ji mm-hmm. rek bokk dugguma ci leneen sama yoon ci leneen waaye dégg naa taxawaayam jox nañ ma taxawaayam dégg naa yi yim ci wax kaas na ba sonn ci mu ngi ko booleeg di jëf waaw te noonu muy def saa ngi nii toog meeru Kébémer nu tudd Lamine Lamine Thiam bu du Lamine Thiam. Mm-hmm. moo nekkoon euh, caissière bu assemblée. Mm-hmm. Mm-hmm. Lamine Thiam mooy maire Kébémer. démb lañ ma yónnee Haarona. mil deux cent et quelque. taalibe ak sëriñ daara ya weer wu ne mu jox leen salaire. est mille deux cent. est-ce que mille deux cent quatre-vingt-quatre taalibe bi. Lamine Thiam bu Kébémer. feebar bi commencé léegi. seen añ seen reer seen ndékki moo ko gàddu. est te daara yi mu nga nekk quarante sept daara mm-hmm. quarante sept daara mm-hmm. élèves yëpp boo ko boolee mu ngi nekk mil deux cent quatre vingt sept mm-hmm. ñaata oustaz est ya fa ñoom ñëpp trente cinq oustaz mm. weer wu dee mu jox leen ko ne sa salaire waaye aaroona mm. lii kay lañ soxla maire Kébé maire a def loolu Lamine Thiam sama xarit la maa jot yëpp taal si mi def loolu sama xarit la mm-hmm. am meer boo ko meer day nàmpalaate mm-hmm. yor ay ween mm-hmm. waaye meer bu yorul ween du tus ñu kan rey loolu muy dëgg macha allah du mm. def lii ma la wax boole ñaari oto la leen jox pour ñu yóbbu dund bi ak gasoil ba muy àndal bokkul ak lu joxe dépense par semaine par semaine sept diwlin bokku ci mhm. ceeb bokku ci mhm. suukar ak café bokku mhm. la leen yoree da dañ lii muy def manu ko ba tey jii mu ngi koy def Lamine Thiam bu kebe maire mooy maire ba mooy def lii maireu Thiès Talla Sylla mooy def laa ah, ah, moom itam dix-sept mille dix dundal par bis ah, ah. Arouna Talla Sylla. 17000 taalibe. Mm-hmm. lay lay jàppale par bés. Mm-hmm. waaw léegi Arona. Mm-hmm. lu ñuy reeg wax. ñun gëmuñu ñuy wax. dañ topp fële. waaw ñun li ñu gëm mooy jëf kat. man mbarum wax soxloo ma ci dara. <laughs> man nit kuy jëf laa bëgg. waaw. est loolu muy def. Lamine Thiam di ko def. Hmm. lool la ñu soxla. Hmm. waaw. Hmm. waaye yéen ay siwo indil ñu di ñu rey rek naa raxasu leen raxasu leen muy raxasoo fu ñuy lekk. <laughs> ñu rey waaye raxasu raxasu ñu raxasu rek suñu loxo yi wow nga ñëw raxasuwaale. raxasu ci eh, doo doo lekk léegi ñu raxas la suuli <laughs> ñu kenn topp leen fay yi ngeen ko. léegi gis <laughs> ñu yaakaar ne xulli yóbbu nañu. dañuy fa rek. dara gësamuñ. est-ce soobee sunu borom. daa rëgg sëmmuma mhm. bu soobee sunu borom mhm. lii mooy ndimbal mhm. lii taali si la def lii Lamine Thiam def am na it ñu ko def ñu ñu xamul ah am na nag uh-huh. am na ñu ñoo dul xam ñu def ko waaye yii ñoo fees di koy waxe nag wama sey na illaa bi ma alim na yàlla nee na làmbatu baaxul ba xam la nga xam Lamine Thiam nga xam ak taali si la yamal ci ñi nga xam bu cay jéem a yokk ñu ñu woola ne la waxoo dëgg loolu amu fi voilà mm-hmm. kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax mm. daara yi daal mm. ah man de maa ci ñoom de mm-hmm. ci daara yi sëñ Babacar ji laa toog di wax ak yéen mm-hmm. ci daara yi laa ne maa ngi ci diini ci maa ngi ci alxuraan maa ngi ci sunu borom waaw du ma ci dellu ginnaaw de abadan kon yàlla ñu yàlla may jàmm. amiin amiin yaa rabbal aalamiin dégg nañu lool. jërëjëf jërëjëf ngeen amee lu ngeen ci toftal ma déglu leen. Mm-hmm. waaw xanaa ay ay ay yóbbante yi fi ñëw rek. ginnaaw bañ la mm-hmm. ñaanalee yàlla dool la kàttan dolli sutura ci barke yonent bi Euh, ay yóbbade géy géy ca fayu dañ koy mof rek ndax xam naa heure bi euh, tabaarakallaahu eh, eh. géy géy ca fayu mi ngi yónnee léegi message di rafetlu waxtaan bi di sant di gërëm euh, sëñ Bas ca kër Ibra moom it fa mi ngi yónnee ay cant ngërëm sunu yaay booy muy maire Yacine nga xam ni moom yàgg na kër sañ Cheikh dëkk ca Sànge di sa soppe ñëw na ba ci rajo bi fii taba daan la seet si waaye mage gi ak yooyu moo tax mënutu la ñëw waaye démb daf ma woo ni ma yóbbanteel ma sama yóbbante nag ndax maa ngi lay déglu tabaarakallaahu ndax soo ko waxul dinaa ko dégg ndax Cheikh Ibrahima sama soppe la sama doom la sama njaboot la danga koy ñaanal kon fa tabaarakallaahu ñu ngi lay sant di la gërëm euh, sama doom la sama njaboot la danga koy ñaanal